devant de la scène et que pourtant il y a des urgences qui vous attendent mais tout le temps des nègres au devant de la scène dénoncer et euh, puis entre autres entre autres alors qu'est-ce qui vous empêche euh, réellement de pas se bi euh, focus concrètement ah bien moi je dis que ce sont les gens qui parlent de ça mais nous sommes focus à notre à nos objectifs. mais c'est pas tey pas tey pas pas tey mu pas Pape kenn ku ci nekk yaa ngi sa droit parce que les sénégalais ont le droit de savoir ce qui se passe il faut que ñu communiquer ak sénégalais yi wax sénégalais yi tey du defekkee ni euh, Fadilou la conseil bi nga xamante ni moom lañ ko jox kees bi ko jox il fait un travail exceptionnel mais nag du war a génn war a wax ak sénégalais yi dafay génn wax ak sénégalais yi tey ku mel ni Pape Alé daf daf dëgg la posture am war na changer parce que bi mu nekkee Dakar matin.

il faut que ce qui se passe peut-être que ñu concrètement madame, on n'est pas prêt. on n'est pas prêt comme quoi je veux, que ça soit clair. Hein. Euh, parce que papa, il faut dire la vérité au Sénégalais. c'est ça parce que li gënoon pas de urgent. Quand on peut d'après ses dires. Le mot urgent finit pour les Sénégalais. Ah, d'après les dund ñu jaa Sénégal ñu teg ko ci raay bi nga xamantene na jëm ci raay développement. Hmm. te ci loolu lañu nekk. Hmm. s'il s'agit de s'il s'agit de communiquer avec les Sénégalais Pape allez, a le droit de communiquer avec les Sénégalais comme nam ko daan defee. Fadilou a le droit de communiquer avec les Sénégalais comme nam ko daan defee buñu spécifier buñu buñu def focus tout simplement et qui eh, mi ngi génn chaque jour mu wax chaque jour mu wax loolu dafa esprit. Euh, péjoratif bi nga xamante ni ñun esprit négatif bi nga xamante ni war ñoo xoolee foofu war ñoo xool ne ah yéen doo leen daan dégg nit ba déggatu leen ko sax boobaa seen xel ni war naa war naa am njort mais nit ki da nga daan dégg tey nga jox ko liggéey liggéey bi nga xamante ne moom nga ko jox mu ciy génn ci askan wi li nga xamante ni mooy jëmee kanam ask Sénégal kon kooku noonu dañ ko war def chapeau war ko félicité bu baax a baax a baax je di dis et je le redis kenn duñu tënk ne doo leen wax duñu war a wax askan wi. dañuy génn wax askan bi mais askan yi li ñuy li ñuy sas moom mooy que ni ñu liggéey te incha allah dañ liggéey teg Sénégal ci ay raay yi nga xamante ni na bokk ci pays yi nga xamante ñooy gën a développé wax naa la ko keroog ne les cinquante quatre pour cent ñoom moo fay moom moo fay le président Bassirou Diomaye mais tey jii du ubbee xolu Sénégal yi mën naa ni plus de cent dix pour cent dañu kontaan ci nga xamante ni li Bassirou di doxal. le président merci beaucoup jaajëf merci Malcolm Fall jaajëfal nañ la bu baax a baax a baax l' actualité était au rendez-vous euh, def nañ exactement le résumé euh, de l' actualité bàyyi nga daal tàggatoo ak justement l'ensemble de nos téléspectateurs. sëñ Fallou moi je vous félicite vraiment. si hmm. pertinence yi hmm. question yi ci vraiment ci lu bëree bëri. di féliciter tamit euh, le directeur Vieux Thian di nuyu l'ensemble de nos téléspectateurs yi nga xamante ni chaque instant dañuy ñëw di déglu le mercredi di seetlu di déglu waxtaan bi nga mm. xamante ni ñu ngi koy def ak ñoom. ñu ci profité occasion di nuyu suñu plateforme ñun ñi ëpp. avec le président Ibnou. Mm. waxoon naa dañu am benn forum bu ñu préparé en France. Mm. léegi incha allah beneen bi lañ bëgg a dawaat au Sénégal pour vraiment dire mon la diaspora venue ñuy le président mm. euh, Bassirou Diomaye merci beaucoup Malcolm merci ñu lay et bonne chance euh, si vous fils de Dakar euh, hein, nous serons au rendez-vous si vous voulez alors merci mesdames messieurs voilà ça n'est tout votre émission Midi Vous merci beaucoup d'avoir suivi mais également l'ensemble des équipes en régie merci beaucoup de votre constance et de votre fidélité nos programmes se poursuivent sur toutes nos plateformes digitales bon bon après-midi à tous et à tous CEFAS, le centre de formation